wàllum lakkum jën ak i keccaax gannaaw safara si nag seen liggéey fu mu tool nii daal dee taxaw. ñu yàq lu bëri mënuñu ko sax estimer parce que ñun ni ñuy liggéeyee dañuy liggéeyee ak financement financement yi si la ñuy jënd suñuy produit di teg si la jënd aussi bagage yi nga xamante ne suñuy liggéeyee comme ni ko xale yi di waxee rek ku si yor sa financement rek dina mat deux trois cent mille léegi jën bi bëriwul mais daan nañu yor lu ëpp loolu. barab bi nag laataa muy lakk jigéen ñi fi nekk doon liggéey nag ci anam gu jéggi dayoo ministre de l'environnement daal dee ñëw nag indi leen ak njàppale ci kanamu Abdou Karim Sall ñoom soxna yi daal dee wax nag lay seen bëgg-bëgg. parce que miin ay jëfam biñ ko gisee suñu xel dafa dal tàkk-tàkk bi balaa muy am 30 minutes gis nañ ko fii dañu lay ñaan nga jàppale ñu parce que liggéey bi ñuy liggéey li ma ko la ko waxee sànq ku nekk gis na si boppam bés bu nekk man mii di wax ak yow mën naa jaay un million man kese kon xaalis sa fiy dugg te fi ñuy liggéeyee mu nekk ay mbaar ya nga xam ne saa bu ñu lakkalee amuñu fu ñu toog kon ñu gis nga xam ne suñu kanam yi boo ñu xoolee changé na parce que amuñu fu ñu toog mais bu ñu lakkalee ngeen defal ñu ay bu dee ñaari mbaar sax yu ñu cimenté suñu lëkkalee suñu xëyee dinañ mën bale ba mu set ñëw toog liggéey suñu liggéey. kii di Abdou Karim Sall ni dégg na nag njàmbat li te des na ko bàyyi xel ngir bu ëllëgee lakk gu mel bañ a amati. daaru minam de mbokk yi ca département bu Marème Odar la nekk foofee nag ku mooywul daañu nemmeeku ak féewaloo eh, ci askan wa nga xam ne ñoom ñoo fa yeewoo ndax itam lu tollook eh, juróom-ñett ci ay village daal nañu bind ab bataaxal jébbal ko eh, njiit bu réew bu Sénégal lu ñu bëgg bokk na ci rek ñu daal di leen di amal ab commune wu yees ñenn ci askan wa itam ne du ca dal ndax itam ki nga xam ne moom moo di xalifa général di murid itam àndul ci mbir mu ni mel Ababacar Fall bopp jagleel nañu ko. beneen coowal suuf juddu ci àllu xelxom bi ci commune bu Darou Minam 2 département bu Malem Odar gannaaw bi nga xam ne askan wa nemmeeku nañ ne dafa am juróom-ñetti dëkk yoo xam ne dañee bokk ci commune bu Darou Minam beddeeku bind njiitu réew mi ab bataaxal ne dañoo bëgg xaaj commune bi ñaar ci fanweer ak juróom-ñeenti dëkk yi askan wa ne du ci dal mboolem kilifa diine yi fi nekk fii ak borom dëkk yi nga xam ne ñoo dëkk ci commune Daaru Minam gox booba mooy seen rawukaayu jur li tàmbalee jaaga ba xayra jëm Madina Fall lu mat ñetti forage mi ngi fi juróom-benn école mi ngi fi population bu ko matee mi ngi fi dëkk ci ëllëg la Serigne Moustapha Bassirou taxawal commune Daaru Minam moo waral njaboot ko bëgg nag mbir mi ñu teg ko ci suuf commune la boo xam ne bii Serigne Moustapha moo ko créé mu bokk ci commune yi njëkk ci commune nawleem yi moom ñoom la ko seqal ñu ñu bokk ñu bokk ko bu ñu toogee ba léegi dañ koy découpé ci lu ñu yëgut njabootam nekk fi kon loolu daañu ci am lu ñu metti trop neexuñu ah, te am nañ ci ndigal ci kilifa gënulu ko su sañoon ñu bàyyi commune am numéro bu kenn laal commune am ko laal ñoom askan wi nag nee nañu am na ay kilifa yoo xam ne ñu ngi bokk ci nguur gi ñooy dox lu ñu mel Tamsir Ndaw nekk adjoint maire bu commune bu Darou Minam 2 moo ko xamle leen c'est un projet politique bu sotteegu am na ay ministre de la république yu leen ciy jàppale yoo xam ne bokkuñu région ak benn kilifa diine bu ca ne président de la république moom di ko wax ndax xam ne lañ ko wax loolu wérul na jox ko gox bi wax ak ñoom fi mu toll ni nag autorité administrative ngi def enquête ci mbir moomule moo waral nag jamono ji askan wa nag di dànkaaf fu njiitu réew mi mu bàyyi xel ci wàllu wu ni mel ñu ñu wutali fa nga xam ne moom moo di diwaan bu Sikicoor euh, mu mel ni nag lancement wuk campagne uk derkase bi atum mu mel ñi nga xam ne ñoom ñoo yëngu ci wàll wi am nañ si ab yaakaar naka noonu itam ñu ngi xaar ñu daal di leen di jàppale ci lu tolloo ko fukk ak juróom-ñeent ci ay milliards ci suñu ay koppar wow li euh, diwaan Boubacar Diassi ak Lamine Mandian ndaje bu spécial bu ñu amal ci diwaan bu Ziguinchor te jagleel ko lii di filière anacarde rawatina tàmbalee campagne 2021 te ministre du commerce jiite ko acteurs yu yëngu ci biile filière ab xel bu daal lañ cee jëlee. Euh, L'État du Sénégal à travers le ministère du commerce ak COSEC ak la DER DER engagé wu na accompagner acteur filière anacarde mu accompagner à auto de douze milliards ginnaaw bu ko laajoon dix milliards. donc loolu moo taxoon vraiment daaw campagne bi ñu sauvé ko cette année ñëw nañu vraiment ñu jox leen même mébét. engagé nañu pour financer ñu à hauteur de dix-neuf milliards donc euh, di loo xamante ni ñu ko doon rafetlu et mooy loo xamante moom lañ doon xaar pour vraiment commencer campagne ANACAR et xalaat nañ daal ren incha allah tamit comme campagne bi ni mu nekkoon euh, réussite daaw ren tamit dina nekk réussit incha allah. waaye lu am ba des mooy te ñëpp nar cee taxaw mooy nan la ñuy def ba soppi ngir jaayaat lépp luy production locale. di wax ni li nga xamante ne Euh, comme décision nañu fexe liggéey bi continuer bu mu nekk liggéey boo xam ne dañuy xaaraat ba déwén euh, campagne bi jege ñuy soog euh, di toog gisee mais liñ fi wax yëpp nañu jéem fexe liggéey ci ak service technique yi nga xamante ne vraiment année prochaine bu ñuy lancer ti campagne bi wala ñu def évaluation bi ñu gis ni am na ay jéego yu mag a mag yuñ ci def. mën nañ jàpp ni acteur yu yëngu ci filière anacarde ci diiwaan bët Saalum réew mii ñoo ngi am yaakaar ni daañu exporter ren. atum 2021 bi ñu nekk nii gën kaa néew juróom-benn fukki junni tonne bu ndaamaraas mbokk yi bokk na ci leneen loo xamante ni maa ngi leen ko doon junj bi ñu door yi la jotaayu ah, xibaar cour pénal international itam daal nay ubbi aw l'enquête ci jafe-jafe yi nga xam ne ah, ñu ngi koy nemmeeku ca diwaan bu ah, Palestine ba tax itam ay doomi aadama di ca faatu samay kàddu ki nga xam ne di faatu benn Soudan naka noonu itam wax na rek ci kalaame wi nga xam ne ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko daal na koy kalaame moom faatu benn Soudan li mu xam ne moom moo di cour bi mi ngi sëgg ci wow wowle dossier ngir rek daal di koy càmbar ni tey ji mu ngi doon amal ab jano ak way taskatu xibaar yi Abi fay ak Youssou Baro ñoo tataan ay kàddoom ubbi nañ enquête Palestine ubbi nañ ko depuis mars bii ñu passé euh, d'abord liggéey bi Palestine yàgg na taay yëpp ñu ngi ci woon Palestine ñoo saisir pour pénale depuis 2015 pour ñu pour ñu euh, seet liy xew foofu boobu ba tey nag ñu ngi liggéey xam nga ñun foog dinañ war a am ay ay preuve ay preuve daal ak ay information lu lu lu wër pour wane ne cour pénal wax dëgg yàlla compétence am mu nga fa pour ñu mën a commencer bi loolu leeree nag ba set ci man ak suma équipe ci laa dem ci juge wax leen ne leen foog naa ne daal critères yi yëpp rempli na pour ñun ñu ñun ñu dugg Palestine def enquête waaye ñun cour pénal li ñu koy ooyee mooy article quinze nga xam ne ku nekk mun naa jóg yónnee yi ay information ne waaw lii kat a ngi xew gis nga bu ñu jotee loolu expliqué naa ko ba pare buñ jotee information yooyu yëpp foog ñu vérifier ko dinañ seet fii ña kii bind ñu seet kii bind ñu seet boole yëpp seet ndax vraiment euh, lii lu cour pénal war seet la ci foofu lañ toll fi mu nekk gis nañ euh, kii am na ñu ñu ñu bari ñu binda di ñu wax événement yi li xew ak yooyu ñu ngi koo seet euh, mu ngi ci phase bi ñuy ooyee euh, euh, analyses sax nga xam ne dañu jël information parce que yu baree ñëw Palestine boobee nag nga xam ne moom lay àddu réew bu euh, Sénégal indi ab jàpp ndalam xam ngeen ne ni ki démb mi ngi doon amal aw ndaje bu mag fa nga xam ne moom moo di ca place bu euh, l'Obélisque mu mel ni nag ay doomi aadama euh, teew nañu fa ci anam bu am doole moo xam ñu yëngu ci langue politique bi ba ci sax diine ak ñeneen ñoo xamante nii nag ñu ngi fii ci réew mi ngir rek daal di jàppale ñooñu nga xam ne ñoom ñoo fa nekk waaye tam boom yi nga xam ne ñu ngi koy boom ñenn ci ay doomi aadama daal di dakk la ñu bëgg foofee itam am na ay kàddu yoo xamante nii daal na fay jibee ñu bokk teewlu. li ngeen di ñëw par rapport ak euh, comportement Israël euh, mi nga xamante ne si sous le regard euh, vraiment complice de tous les beaucoup de pays musulmans notamment l'Arabie saoudite également sous le soutien complice de des des pays étrangers di dal suñu ci suñu kaw ay mbokk jullit di leen rey injustement loolu lañ ñëwoon tey mettit ko naqarlu ko wane suñu njàppale ci suñu mbokk jullit yooyu ay lieu de culte nga dem bombardé ko te xam nañ ne crime de guerre bi gën a waar mooy école ak foo xam ne dañ fay jaamoo suñu borom nga dem attaqué ko al xam nañ ne tey mooy symbole de la cohésion humanitaire alors juif yi ñoo ko bokk ak jullit yi ak catholique yi mais jihad doonul simplement da ngay jël arme nga xeex par sa fois tey boo seetee alalu àddina buñ ko dajale woon jullit yi bu doonee cent pour cent jullit yi ñoo moom soixante-dix pour cent donc tey mënuñu seetaan lii di continuer di am labbayka ya aqsa mu mel ni seet àdduna benn jullit moo fi am muy le président le président moom rek moo fi taxaw jël position bu wóor ñi si des ñëpp toog di seetaan loolu nag heureusement tey yàlla dimbali nañu ba le peuple sénégalais ñoom taxaw nañu bi état taxawule le peuple sénégalais taxaw nañu ànd ak waa Palestine nara bu daroon tey jii dem xeex yi ñëppay dugg si avion yi dem xeex yi. li xew Palestine jaaduwul dëppul ak yoon du yoon dundu doomu aadama bakkanu doomu aadama dafa fort lii day mooy fokk suñu réew. état wu Sénégal jël ci taxawaay bu am solo taxawaay bu leer nañ bu amul xàjj ak seen. allahu akbar. ki teewal Palestine fii ci réew bu Sénégal di ambassadeur bi moom nag mi ngi rafetlu bu baax a baax njàpp ndal wi nga xam ne doomu réew bu Sénégal ñu ngi koy amalal jëmale ci ñoom naka noonu itam muy ah, xam la rek ne ah, moom mi ngi leen jox nopp ndax itam mi ngi rek li dégg li nga xam ne ah, moom moo di conseil yeeg yeneen yu ni mel ñu teewlu ay kàddoom. Vous, les Sénégalais, vous méritez tous nos respects et toute notre salutation. yéen waa Sénégal dañu leen di sant di leen gërëm su ñu nee Sénégal nag du ñu nekk fii rekk place de l'obélisque ñépp ci biir réew mi gis nañu seen taxawaay dégg nañ leen ñenn ñi itam liir nañu leen. Je vous ai vu, je vous ai entendu. gis nañ ni ngeen di jàppale Palestine di ko soutenir te Palestine loolu kese la doon xaar ci yéen bëri na ñu ci ñëw sama kër yéen ñépp kon ñu ngi leen di gërëm Ibrahima Kane moom moo tekki yooyu le uh, kàddu ñu wax ci leneen mbokk yi mu ñeel wàllu uh, caada jàppale ne lu tollook juróom-ñett ci ay artiste moo xam uh, fii ci réew bu Sénégal wala bokk ca biti réew ñoom ñooñu nag ñoom ñoo génnee wàllu singal ginnaaw itam bi nga xam ne rek ca la ñuy yëngu mu di wàllu musique bi mu xawee am ay taggatémbe ndax itam jàngoroy Covid 19 amal nañ li nga xam ne rek moom moo di cérémonie woo xamante ni ma ngay jëmmal single woowee nga xam ne génnee nañu ko Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye forevermore Que le soleil brise sur ta peau au Sénégal woy bii ñu ngi koy duppee bienvenue au Sénégal hymne à la fraternité foog nos artistes xam ni euh, l'art ce n'est pas uniquement euh, de l'argent à un moment, un artiste doit pouvoir s'exprimer sur quelque chose sans pour autant en contrepartie attendre de l'argent parce que c'est ça loolu mooy déterminer la valeur et la dimension artistique de quelqu'un. juróom-ñetti artiste ñoo daal di woy single bi ci ñooñu ab Guité Seck Pape Diouf Assane Ndiaye Titi ak ñeneen. li ñu tax jëf muy ñëpp màpp riir jubal Sénégal ngir dooleel sunu secteur tourisme waaye dooleel sunu aada ak cosaan. dooleel sunu économie dooleel sunu lépp ndaxte fu doomu aadama yi daje rek yàlla dafay dajeek ñoom. single bi nag ndoorteel la ci ab benn projet bu ñu sukkandiku ci Papis Niang ñi mu àndal. rapport itam ñu ngi bàyyi seen waar bu uh, baax a baax ñoom itam bëgg nañoo gën a ñoŋal lépp lu ñeel wàllu caada fi ci réew bu uh, Sénégal waaye itam dinañu xamal rek ne daañu woyal activité yi waaye daañu bàyyi xel bu baax a baax ci li nga xam ne uh, moom la waa kër docteur santaane ci jamono yi nga xam ne Covid 19 mi ngi fii ci réew bu Sénégal Ibou Diouf Amadou Ba ci reportage. mi suñu réew. mbas mi ñu gën a xam ci turu coronavirus la mel ay yëngu-yëngu yu bëri bokk na ci bu artistes yi ci ñooñee bokk ci rappeurs yi ñoom nag nee nañ dund nañ lu metti gannaaw feebar bi nga xamante ne daanaka dafa nasaxaloon seen yëngu-yëngu le choix en vérité, on est bu loolu weesoo tamit nee na am na ci loo xamante ne mbas mi mayoon na leen ñu gën a liggéey. confinement bi peut-être que occasion la woon pour ñu bëri ñu mën a toog seen kër. mën a wéet mën a inspiré waat mën a bindaat ay affaires yu bees muy muy écrivain bi muy rappeur bi muy woykat bi ñoom yëpp ku nekk dina am occasion pour pour ressourcer waat nekkaat ci sa bopp après mën a génnaat bindaat. da lay pousser nga réfléchir nu ngay euh, exister malgré feebar bi. bokk na ci matuwaay yi nga xamante ne artistes yi jëloon nañ ko ngir mën a dund bu baax a baax ak mbas mi li ñuy duppee xarala yu yees yi wala digital. seen le plus important actuellement moo ñu liggéey euh, tout ce qui ci musique bi ci vidéo yi ci forum yi ci lépp lu ñuy def maintenant il faut ñu boole ci digital bi bu baax a baax a baax. mbas mi nag may na ñenn ñi ñu defaraat seen taxawaay xam ni nga xam ne mooy solos digital ak waajal bu baax a baax. lii la di reprise bi. soo gisee gars yi commencé nañ ay concert euh, soo xoolee week-end dernier muy Dakar di Ziguinchor di ci ay régions yu bëri gars yi ñu ngi commencé waat concert yi c'est ça qui est important il faut pas gars yi bàyyi il faut pas gars décourager. waaw dañuy dañuy war a fagaru bu ñuy ñëw retour donc comme que mbas mi mi ngi fi ba léegi jeexul à 100 pour cent xam nañ loolu. donc toujours ñu continuer di garder masques yi toujours ñu continuer di garder distanciation sociale yi. jamono ji nga xamante ne nag mbas maa ngi wàññeeku bu baax a baax terewul kilifa yi nag ñu ngi sàkku ci ñooñi ñu saxoo digle yi mën nañu def kem kàttan ngir reprise bi doon lu mu ca jërëjëf euh, Ibou Diouf cant ak ngërëm ñeel na la mbokk yi ñu wax ci leneen mu euh, soxal wàllu tàggat yaram wax ci euh, bëre nag mu mel ni comité régional de gestion diwaan bu Kaolack nag mi ngi wàcc li nga xam ne moom moo di ab làmb la bu mag boo xamante ni daañ ci dalal ay doomu réew bu Sénégal yoo xamante ni daañu bàyyeekoo ci gox-goxaat yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci mim réew làmb googee nag ñu ngi ko dippee ki nga xam ne moom moo di directeur général bu Sénélec Mame Kor njiit bu comité régional euh, bu euh, gestion diwaan bu euh, Kaolack dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Ibrahima Diamé. sas la pour ñun ñi mais sas la pour képp ku yeewoo région Kaolack yàlla def sas boobu nag ñun ñu porte ko ànd ceeg monsieur le gouverneur bés bu yàlla sàkk avant may ñëw fii bés bu yàlla sàkk 17 heures dinañ toog fu ñu toll ndax li am na ndax li manqué na et cetera jàpp nañ ne organisation bi dina rafet bu soobee yàlla ñun daal li ñuy xaar mooy nit ñi ñëw ànd ak waa Kaolack supporter seen équipe. équipe bi nag yàlla def na def nañ sélection bi nem gën a rafete jàpp nañ ne xale yi ñu am nii ay xale yu xarañ lañ xale yu mën a gagné drapeau chef de l' ndax ni ko Ablaye waxee bu njëkk individuel moo doon gagné drapeau chef de l' waaye léegi par équipe la boo yéegee finaal boo gañee boo amee trois victoire gagné nga drapeau bi. juróom-ñaar fukki mbër te nag ci ñi gën a xariñ ci réew mi waa maatam ay mbëri Dakar la ñu jële ak mbëri Fatick waa gu noonu donc bu leen yaakaar ne ñooñu dañuy ñëw rek indi fi ñoo xam ne mbirum laaj ñu daan déedéet ay champion la ñuy indi dañ leen di wëri parce que ku nekk da nga bëgg a bit shaker ñi yëngu ci wàllu euh, caada ca Petite Côte nag ñu ngi ñaawlu bu baax a baax ana lan moo tax boole wu ñu leen ci li nga xam ne euh, moom moo di euh, organisation bi booli géey moom mooy jiit bu PME ak itam TPE dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Abdourahmane jàlloo ak Mamadou Gueye je pense que loolu dina permettre hôtel yi fees dina permettre chaîne de valeur bi nga xamante ne ci dañuy yëngu gën a mën a jàppandi mu ngi mel ni restaurant yi dina dox donc loolu mooy njariñ li déjà pour le développement du tourisme te loolu gëjoon na fi am lool kon ñun dañ koy rafetlu di ñaan rek waa fédération yi bu mel ni yoon tey nañ ci impliquer vraiment les acteurs du tourisme parce que comme on a l'habitude de le dire le tourisme n'est pas une compétence nañu toog waxtaan ak comité de yi nañ toog waxtaan ak la SAPCO ak les parti prenantes yi nga xamante ne vraiment dinañ approprier mbir mi def ci la sax lu ñu jéggi seen i njort donc ñun loolu rek lañ ci am mais rafetlu nañu organisation bi rafetlu nañu li ñu ko fiy def ndax dina profiter vraiment sacteur lu ko je ci lu mu leen doon junj bi ñu door yi la jotaayu xibaar wàllu tàggat yaram football mbokk yi Real ndax itam dina càmm titre champion euh, d'Espagne bi nga xam ne nag moom la ñu ko tabal fii li nga xam ne moom moo di njeexteelug euh, saison bi aw laaj la boo xamante ni nag euh, samp na daañ ko xam ci fanweer ak juróom-ñetteelu nekk itam mu jënteelu journée bu Liga bi mu mel ni itam boobule jongante mi ngi mel ni nag ab final tënk li ak Ibrahima Kane. ay waxtu yu néew rek moo des laata ñoo xam kan ci Real Madrid wala Atlético bu Madrid moo nar a jël championnat Espagne ñeenti waxtu bu jotee ci la ñuy tàmbali fanweer ak juróom-ñetteeli bés bi doon journée bi mujj ci championnat bi Real Madrid am juróom-ñetti fukk ak benn poñ di dalal Villarreal ci stade Alfredo Di Stefano war a gañe match bi bu fekkee bëgg naa jël titre bi. match bu am solo kon ci Zinedine sidan ak gunéem yi ñiy daje ak sous-marin jaune bi di waajal final la mercredi ci Europa League war ci laale ak Manchester United. ci beneen wàll wi Diego Simeone ak i joueur ñaari poñ lañu rawee Real Madrid war a dem ca terrain bu Valladolid ngir nag décrocher seen onzième titre. Colchoneros yi faaw ñu dóor bu fekkee bëgg nañ jël championnat bi kon match bu nara metti ci diggante. Atlético Madrid ak Valladolid nga xam ne moom it day xeex ngir bañ a wàcc deuxième division Real Madrid kon faaw Atlético def faux mu dóor bu fekkee bëgg naa jël championnat bi loole bu anto dina jël fanweer ak juróomeelu titre ci Liga match bi ñuy fàttali Eden Hazard du ci bokk wante Real Sergio Ramos ak Raphaël Varane dellusi nañ ci groupe bi. jërëjëf Ibrahima Kane cant ak ngërëm ñeel la mbokki fi la ñu jaar daal di buural wi la jotaay yu xibaar dig daje ngoon incha allah ak rédaction ah, bu télévision Futur Média lu mooy loola tam ñu bàyyi leen ngeen wëyi ak suñu ay programme fii ci TFM jërë ngeen jëf kenn kendal ak jaam